Mbàkke Bawol ndeysaan waa kundul coiffure ñu tuddee ko ajaratu ne na njaay madame Mbay su dee caar ma dun yore faale alkere bandaar njaay ku bëgg rafet baa nga bëgg lu baaxoo ñëwal fii la defaree da kontaan ngen andak wa elviso meja internasional, International fii ci mbake Bawal neusan ma ngi nuyu baax di kontaan ci li ngeen def ni kontaan naa torop vraiment di nuyu sama élèves yi nekk fii nuyu sama yaay di nuyu sama ñepp daal di sante tamit sama wajur di sant tamit sama mag gi nga xamante ne nii moo ma jàngal métier teete ma ba ma agsi fii. yande yande yande ah euh, tey waa El Vision ñëw seet la fii ñu bëgg a xam maanaam yow yaay kan ñu bëgg a xam maanaam yow si lan nga ko euh, yande bëgg naa xam euh, kañ nga dugg ci métier bi ak moo la poussé ba nga dugg ci métier waa métier bi li ma ci poussé nag sama mag la ma bokkal ndey baay moo yoroon salon bi moo ko yoroon bu yàgg ba léegi. ñu nekk ak moom nekk ay rakkam mu teete ñu ba heure bii ba léegi ni nekkatu fi mais ñun ñoo fi nekk amay dégg moo jàngal ñu lim ñu war a jàngal daal teete ñu teg ñu fam ñu war a teg bañ man li ñu man macha allah tey ji nekk fii mais mel na moo ngi fii parce que lim daan def fii ñoo ngi continuer di ko def waaw client yi tamit jàpp ci bu baax a baax samay élève aussi jàpp ci mooy contente ci ñoom bu baax a baax a baax vraiment parce que jàppale nañ ma ci liggéey bi yépp ak sama rak anta bi ma nekkal fii AC xale yëpp daal vraiment jàpp nañ si liggéey bu baax a baax baax mooy kontaan ci ñoom. Euh, Ndeye Yande en tant que jigéen euh, nu ma ko mën a waxee muy jigéen ju mën góor muy jigéen ju am joma ndax euh, léegi nee naa benn jigéen toggatul benn jigéen toggatul te yaafus nan ngay dundee sa liggéey bi sama liggéey bi nag ni ma koy dundee métti na méttiwul parce que nag samay cliente ñoo ngi sama ginnaaw mais seetaanuñ ma benn yoon ak samay am ni jàmm samay dëkkandoo samay copine kenn seetaanu ma ci daal ñoom ñëpp ñoo may jàppale aussi bëgg nañ Ndeye Yandé madame Mbaye coiffure bëgg nañ ko trop vraiment parce que ko xewle rek da ngay def ne boo ñëwut ci madame Mbaye coiffure rek defaroo waaw ma nekk feeg nag sama rak Anta vraiment jàpp na si lépp moom seetaanu ma si lenn moom aasee sama xale yi seetaanuñ ma si lenn cliente yi nag bëgg nañ ma ay Ndeye Wade Ndeye Khady Kane Midien xale yëpp daal macha allah moom jàpp nañ si bu baax a baax vraiment kontaan naa trop wër na yàlla. waaw di la laaj ndax yow li ngay def euh, fii la yem euh, ci Mbàkke bi wala muy génn feneen ndax extérieur am na ñoo xam ne yaa ngi leen ñawal ay prix euh, mu fay dem wala ngeen defal maanaam li nga xam ne moo nekk réew mu fay dem. waaw maa ngi liggéey ñoom bu baax a baax vraiment extérieur parce que périgu petit teg yi ñuy soxla périgu raw yi ñuy soxla yu baree bari dañ may envo dañ may woo commandé ma ma defaral leen envoyé leen foofu. waaw maa ngi liggéeyu ñoom bu baax moom vraiment. Euh, sànq gis naa la macha allah may toog di suivre ngay defar xale yi macha allah rafet bëgg naa daal nga dugal xale yi ma xool li nga def ndax xam naa ne moom macha allah waa Mbacke moom duñ may kenn dara. waaw waa Mbacke de moom may ñu kenn dara moom mais xale yi na moom macha allah gis nga rek ñoo ngi defar ba mu baax de dinañ leen ko wan ci kanam ngeen xool liñ defar rek. waa man loolu waa El dina ma neex ah ñu daal di dugg si rek ma daal di xool nu mu defaree bopp yi nu mu defaree kanam yi macha allah waa Sénégal gis ko xam ne nday yande mi kat macha allah toogu la ah. waa gis nga maa ko defal nii dafa ko cheveux naturel nii perruque frontale laa ko defaree macha allah mu jongama ma lool Mbàkke Bawol moom ku ne xam ne ne dafa tàng moo tax rek ma dégager ko ko nii defal ko deux tresses américaine wàcceel ko yi ci des nii. gis nga mu jong ma lool xale bi te dafa neex a defar nag macha allah waa ma defal ko make up bu nice bu jong ma yu baax nag laa ko defaree parce que man samay maquillage jugeewul fii États-Unis la samay maquillage jóge macha allah boo ci maquillé nit ki 24 heures mën na ko def ci kanamam mën na ko diiree ci kanamam te du faare du am benn problème waaw defal ko eyebrow yu rafet nii yu nice waaw gis nga daal xale bi moom jongo mën a li tax daal xale yi nag taamu. kundul coiffure lii tax xale yi tàmbu leen waaw. macha allah yéen a ko gisandoo gis ngeen lu mu def macha allah amul nu mu wu ci kër àdduna euh, lan ngay sentir soxna si lu la la defaral. jongoma rek laay sentir ak kundul création rek da ngay ma ba énervé ñu la bañ nga di leen romb di leen bëllee xanaa leer na. di leen bëllee na nooy moytoo sa noonu kon. Oh. <laughs> man maa bëgg xale bu am fit damaa bëgg xale bu capable ah euh, nee naa la ba tey du ma bàyyi euh, damay am ñeneen ñu ma dalal rek ma daal di xool tey euh, xale bu jigéen bi tey nu leen defaree fii ndax tey fii dina ni mbaxalu pont. macha allah yéen a ko gisandoo mais dafa am benn affaire boo xam ne dama ko fee gis ndax sànq maa ngi koy gis suñu jongoma bu ñaawal bi xaw ma lu mu doon dugal si bopp bi di def ay mbuus yooyu bëgg naa daal mu wax ma maanaam mu tekki ma ci affaire bi dara. asalaamaaleykum. maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu seen teewaay fii ci Koundoul Coiffure di leen wax ni ñun dañoo am tendance di def loo xamante ni dafay nekk loo xam ne day raar daal parce que léegi ku nekk xam na ni période dafa xew ba jigéen ñu bari toppatoowul seen karaw ñun nag léegi dañoo am ay traitement yu ñu génne yoo xam traitement de cheveux la malgré que di nga këpp sa perruque mais sa bopp dina set dinañ la létt ba nga xam ne foo toll boo dindee sa perruque sa bopp dina normal waaw traitement yi nag fii lañ koy defee ñu ngi koy defee ak sun magique cap bi moom lañ koy defee ak bain d'huile daal di lay defal mise en prix mooy rouleau yi dugal la casque defal la ko deux euh, deux quatre séances la mu nekk deux mois chaque 15 jours nga ñëw ñu raxasal la sa bopp defal la mise en pli gis nga ni nga bisee bopp bi nii boo xaajee yaa ngi gis der bopp ba paré muy xeeñ lu neex parce que dañu am ay produits yo xamanteni ni produits yu bax la dal ci karaw foo toll yow boo dindee sa perruque tamit tu te à l'aise parce que ñun daal dañuy bëgg chaque jour jigéen ñeeg ñëpp ku ne di gis sa bopp bëgguñu bopp jigéen daal boo koy xool di ci gis lu la metti ñun loolu lañ am tendance des ko ñu waa Koundil coiffure macha allah comme ni ma koy waxee rek nee naa man nu ma fi ñëwee ñu defaral ma rek ëpp na ah, ah lan ngay tàggatoo. waa di tàggatoo rek di leen gërëm di leen waxti tamit fii dañuy def soin de visage di def pédicure manicure. parce que ko xam nga ni ko xam babal xam ne fii vent bi dafa sec danañ la defal lolu yëpp lolu yëpp bo defee dañ lay defal pédicure manucure defal le soin de visage defal le lépp gis nga ko ni ko comme sama rak bi nga ko yoré rek salon bi mom salon yi bari na mais bokul parce que mom day def lo xamanteni dafa modeste ba paré tendance xew li xalé yi bëgg nday yànne mom avec mom mom tout est possible macha allah yéen ko gis nga gis ngeen li ñu nday yaande indil fii ci El Vision Médias allah gis ngeen euh, jongama yi nga xamne defar na leen nday euh, yaande bëgg na ñu waxtaan tuuti ndax luñu déssé ci waxtu euh nday yaande dafa melni dama gisat fi leneen encore lu bokk tak salon bi euh, dafa melni ni nday yaande suma ma dafa am école bo xamne dafay nekk nga jàngal li nga xamne mo nekk xalé yi wala non salon bi amul école mais dañ fi préparer ben institut bo xamanteni ni bu pare macha allah xamna né client yi mom dinañ ci gis seen bop bu baax a baax a baax a institut dal lañ fi programmé def inshallah wa machallah macha ko yéen a euh, kon day yaane tey ku bëggoon déggante ak yow ci numéro téléphone wala ci Facebook tay nan lay def. wa sama numéro téléphone 356 77 la 356 50 40 benen numéro bi 713 87 34 waaw. ku bëgg a ma Facebook bi page bi ñoo ngi def Koundoul coiffure sama Facebook maa ngi def Ndeye Yande Koundoul waaw. Euh, Ndeye Yande Pensa nan ngay dundee li nga xam ne moo nekk client yi ndax Pensa nga am koo xam ne ku mel ni man euh, nga defaral ko mu ne li nga ma defaral neexuma ndax parfois loolu dalay dal. waaw loolu du mën a ñàkk si client yi moom parce que ñëpp bokkuñu am des fois nga am cliente boo xamante ni day compliqué naqaree defar mais comme ñun ñoo ti gisuñ place toog. soxla cliente yi ñoo leen di neexal rek bañ defal leen ñu bëgg. waaw man loolu dina ma neex ndax man damay bëgg patron boo xam ne dafay neexal client ndax nit amul lu dul client ndax client mooy patron bi moom mooy indi li nga xam ne mooy xaalis day yànd tey lan ngay tàggatoo. ah li may tàggatoo de maa ngi sant sama ñaari waajur maa ngi leen di sant bu baax di sant nag sama mag yi nday kundul ki ñu jàngal mais ki bañ ak fii kooku duma ko noppee di sant ndax ginnaaw yàlla tey gi bu ñu toogee ba yore salon di ki yor suñuy teraanga moom la. di sante nak sama client yu bu baakha baakha baax ma ngi leni sante sant parce que bëgg nañ la yande lool awma ma seen fay vraiment awma ma len fay sama élèves fi aussi baax nañ bëgg ma yam fi ma len yam lo yaa ngi may dégg yam fi ma len yam lo ñom ñepp luma ma def lo ñu def ko luma len téré ñu bàyyi ko vraiment man mom neex ma torop di sante nak sama rak antakundu sama rak ko juma bëgg koo xamante ne ni ba mu nekkee man ba léegi mës a nekkee man nekkin bu ñaaw sama rakk la mais sama moroom la daanaka ndax ñoo nekkandoo fii waaye vraiment defu fi lenn loo xamante ne daf may naqari boo fi nekku sama xel day dal moom ak AC ñoom ñëpp su ma fi nekku daal sama xel day dal parce que bu ma leen wanee ginnaaw day mel ne day yaande moom fii aw ma benn problème ak clients yi aw ma jafe-jafe ak clients yi à cause de ñoom parce que déplacement yi bari nañ aussi fu ma leen yebal rek ak déplacement lu mu sori sori dañuy déplacer wu defal client bi lu ko neex ba client bi day obligé wu jël téléphone am di ma woon day yaande sama xol dafa sedd mel ne man maa dem defari leen xam nga loolu tamit vraiment aw ma fayam daa sama rak aw ma fayam aw ma fayam ci benn côté waaw di sant soxna Khoudia mi sama mag la moom tamit maa ngi koy sant bu baax a baax a baax parce que dafa jugee ba Dakar nekk fii mais dafa ñëw fii du ñu jàppale. xam nga lekk ci salon bi def kon ñun ak ay ñun comme ay morom affaire yoy de sante nak sama chéri bu ñaawul bi bay xal ma ngi koy sante bu baaxa baax koku mo sama chéri mo sama yef la ndax xaritu Cheikh abdullah had la ta xam naa ne yàqu dara ndax Cheikh abdullah mom bu ci dara rek da ki feeñ bëgg na ma ba lu ma def lu nekk da koy bëgg lu ma nekk lu nekk neex nako and na ci man muy sama borom ka ndax bu ko neexul won tamit macha allah yéen a ko gisandoo mais dafa am leen lu ma lay laaj muy kan muy Dame Mbaye Xall nga xam ne moo xewle le 8 mars muy sargal jigéen ñi euh, tey ana lan ngay wax loolu en tant que jigéen. maa ngi si woo le 8 mars bi Dame sargal jigéen ñi yàgg na koo def mu doon lu baax a baax maa ngi ciy woo sama mbokku jigéen yépp maa ngi leen siy woo ne ñoom ñépp préparé te xam ne nag 8 mars ak dàmbaay Mbaye rek dara du yomb. macha allah yéen a ko déggandoo man nee naa dinaa mbëkke dinaa dóore le 8 mars rek dina daanoo nu ne nee naa leen du ma ñibbi Mbàkke fii laay toog ba le 8 mars passé may doog a ñibbi ndax daa mbay xaal rek nee naa comme lu mu def xéewal ga rek lu ko raw rek lay def fii nii barke Serigne Touba nee naa la ga daanoo nu ne ci àdduna dama bëgg nag euh, fii di Mbàkke daal di daanoo nu ne waa Dakar dina ñëw teewal kan daa mbay xaal dama lay mbëkk rek fii wàcc macha allah comme ni ma leen ko waxee woon rek ah ma ñëw taxaw ak élèves yi euh, ma tànn ci benn élève nag mu wax ma nan lay centré li nga xam ne moo nekk liggéeyam nan lay centré li nga xam ne moo nekk euh, maanaam moom ak patron am euh, soxna si naa maa ngi lay fay bu baax. dama lay laaj benn question ku nekk xam ne maanaam nekk ak sa patron neex na wala neexul pensa nga nekkal ñi nga xam ne macha allah doo am jàmm dafa mel ni da yéen ni ma leen gisee dafa mel ni dafa am benn complicité boo xam ne am ngeen ko ax seen patron muy jàmm ak salaam tey nan ngay dundee ak mbég boobu. ñu ne suñu patron ñoo ngi koy sant bu baax muy Ndeye Yande Koundou di ko gërëm ak Anta Mbaxal ñu leen sant bu baax di leen gërëm ndax ñëw ñu salon bi rek ñu def ñu ay mbaam wala dara ñooñu man salon bi ma fi ma fi waaye ma fi ñëwee ba léegi wax dëgg fa yàlla toppatoo nañ ma yar na ñun ñëpp ñun ñëpp ànd nañoo ñun luñ ñu def rek ñu lu ñuy def dinañ ñu ko wax dinañ ñu wax kaay taxaw fii xool wax dëgg yàlla ñun moom amuñu lu ñuy bañ ci salon bi. toppatoo nañ leen bu baax ak Ndeye Yane Anta Assa ñoom ñëpp wax dëgg yàlla Awa Diouf kenn defuñu fi leen loo xamante ne mën nañ fee war a jóge ëllëg ñoo ngi sant ñu leen sant bu baax di leen gërëm ndax ëllëg buñu tey bu buñu mënee suñu métier ñoom ñoo tax ñu mën ko dëgg yàlla ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm macha allah yéen a ko déggandoo waa El Vision Média euh, sista Zeyna la puissance nee naa la chaque jour rek nii lay dem ak yéen nee naa la man xeebu ma sax jaaykatu socc bi wala jaaykatu gerte caaf bi nee la chaque jour rek nii laa koy defee ak dama leen di jox rendez-vous kañ le 8 mars avec Dambay Xàll dina daanoo ni na ci kër àdduna nee naa dina mel ni maxalu pont ndax Dambay Xàll moo leen di cokotaan ci pokotaan muy neex ah pire et dire sama gars